bëgg lancer travaux yi nga xam ni moom mooy yaatal boulevard Maurice Gueye ñëpp xam nañu Rufisque mook Ndar ñoom ñoo jëkk am statut de commune fii ci Sénégal c'était le 10 août 1872 mu nekk dëkk bu emblématique dëkk bu am solo képp ku doon ñëw Dakar wala gën génn Dakar fii nga doon jaar tey jii nag président dans le cadre de Promoville bu ne damay yaatal yoon bi nga xam ne ñëpp xam nañu yoon bi muy le boulevard Maurice Gueye def ko deux fois deux voies deux voies bu nekk am 7 mètres de large def ci ay aménagement maanaam def ko lu mel na Champs-Élysées wala lu law Champs-Élysées yaakaar naa ni kooku président de la République am na loo xam ne defal na ko Rufisque su ma jëlee maanaam koppar yi nga xam ni Promoville moom la am financement BAD, a à peu près 75 milliards. financement BID, 81 milliards. Si vous as le budget d'État, c'était 69 milliards. Lolo, si on a fait il y a un refus qui est avons fait. Amul ben a un de avons Lolo, le président de la République, Parce que c'est presque 24 milliards de financement, les refus bénéficiaux, si on le financement, pour le a

président Sénégal donc la modeste, je ñu fexe di liggéey gën liggéey donc moo donc présent loolu moo ñu tax a de di délo di remercier ni fi entreprise bi jox nañ délai travaux yi sur 24 mois environ tout au plus tout au plus donc gëm filet 2023, je sais que nos amis maires sont beaucoup. Les travaux paraissent. Je sais que nous sommes beaucoup Je sais que nous